Info Ribari Gao, Uras Info l'info à temps réel Uras Info Djangadju du code te notre force le traitement de l'info <laughs>

Oke, yi ini tey ñu ngi ini ci Porokhane ñu ngi nii ñu jéem a dugg ci fu ñu ñi ndax ñoo ñu xool ndax danañ mën a jaar fii duggam déet yaakaar na fii du porte pour ñu duggee fii porte sortie bi la waaw dañuy seet fi nga xam ne mooy porte porte entrée bi waaw ñuy soot xool porte entrée bi fan la ñu jéem a duggee foofu fii porte mooy porte bi nga xam ne ni mooy porte bi nit ñi di génnee ko ziar pare fi nga jaar génn waaw jumaa jaa ngi nii jumaa jaa ngi nii Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu xóot te dëggu notre force le traitement